nga dégg moo ëpp solo Maodo daan na mere lool ku jàng te déggul li mu jàng daf ko daan feebar sax waaw daf ko daan feebar moo tax بيتبا دفكو دان فرال ديرك وخ ديكو وخات لقد لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي دفكو دان ريك بيتبا دفا وخني كيغا وخل دفا فاتو موتا ديكو kon nag bul sonal sa bopp ki faatu kay kenn du wax ak moom waaye fekk na mooy koo xam ni nanguwu la dégg rek waaw bu ko defee ci biir loolu yonent bi nekk fi man ci ñépp waaw wax la loo xam ni kenn ko wax wax la loo xam ni boo te dégg ko dinga ko jariñoo ba faw nekk ci ak nit ñi fekk am nañu ko ci jiitu waaw wante yàlla dimbali ko ci waxin kenn xamul ni mu daan waxe te waxinam nag li muy am solo yépp àggul alquran ci wee waaw bu waxu yonent bi dee xaalis waxu alquran moom rus lay doon parce que ku jàng alquran xam ni kii nit waxu kooku moom loo gàtt-gàtt xel loo gàtt-gàtt alluwa boo jàngee alquran xam ni kii du waxu nit moo tax jar na di jàng nag wante jàng ba ca war waxu ñu soow rekk génn ca noonu kese kese dëgg la nag li ci nekk yépp ci yiw kenn mënu ko jëfandikoo li ci nekk yépp ci musiba kenn mënu ko wattandiku kon nag yàlla rek a fi des waaw kooku lool rekk la tabarkalla tabarkalla la mu daj yépp terewul bi muy dem mu ni leen neexul ba neexul wante suma demee sama xeet wi dinañu teqali ko ñu nekk juróom-ñaar fukki xaaj kenn ku ne di woote ni yaa nekk ci dëkk loolu lu ci nit ma parce que yàlla ko bëggee noonu parce que kuy yar volonté fokk ngay teqale teqale ba noppi ni bu leen teqalikoo loolu kenn mësu ko dégg loolu yàlla rek ko sañ teqali nit ñi ba noppi ni bu leen teqalikoo te moom moo leen teqali seetal loolu bu ko defee ñuy reyante rek ak di xastante rek te mu ne bu leen ko def bu ngeen ko defee rek ma yóbbu leen safara waaye nangeen ngeen teqali ko xuloo ndax damay yar volonté ci yéen seetal loolu nga defe ni kon àdduna dana neex du neex ñuy wéy ci loolu ku ne di weddi sa moroom wala nga saxal sa moroom walla nga faral kenn bàyyi ka ca des ñu nekk ci yooyu ba nga xam ni daaniki ci la tendance yépp juddoo tendance yi lan lañu jur ay tariqa ay tariqa lañu mujj jur ñoom tendance am na at bu nga xam ni dama def voyage di jéem a seet ñu ma mën a xam ci ñu am amee tariqa waaye jot naa ca bind juróom benn fukki tariqa ak ñett